asalaamaaleykum mbokki internet yi dal leen jàmm seen seen Leral Foot TV gars may am mbette saa su ne di leen defal ay vidéo te ñu ànd ak yéen te waxtaan ci Moussa Niakhaté moom mi nga xamante ne dafa bañ équipe de France pour ñëw fii équipe nationale du Sénégal ainsi que Ismaël Sarr nga xamante ne moom lañu bokk na ci joueurs yi nga xamante ne ñoom lañu choisir pour remplacer fële Sadio Mané en cas de départ fële ci Liverpool mais laata loolu gars yi képp ku gan ci page bi ñu ngi leen ne bu fàtte abonné wu nga aimé vidéo ndaxte lu am solo la gaay yi Moussa Diakhaté nag ah, ko xamul bi national la franco sénégalais mën na jouer France wala mën na jouer Sénégal ah yàgg nañ def ay profilement ah, expliquer nañ yëpp am na yenn vidéo dem na si suuf ngeen xool ko pour ñi nga xamante ne xamuñu ko Moussa Diakhaté na di évoluer fële ca Mayence moo di Bundesliga mu nekk capitaine de Mayence ah, mu nekk le plus capitaine de la Bundesliga un joueur très prometteur di jouer ci axe bi ah moom nag gars selon les informations il aurait choisi le Sénégal plutôt que la France ah selon les informations que ñi nga xamante ne RMC RMC ñoo ko publié Moussa Niaté dafa bañ sélection de France pour ñëw fii si Sénégal gars yi te tamit nag bii wane ne carrément que lu ñu doon wax ci moom yëpp du zéro parce que yàgg nañ wax ci ay mbiram boo demee ci vidéo yi ngeen xool da ngeen koy gis foofu def nañu profil yëpp lépp lañu dañuy détaillé yëpp ci xamante moo di Moussa Niaté fu mu juddu yëpp gars dem ne foofu ngeen xool pour ñu nga xamante ne xamuñu ko Moussa Niakhaté nag gars yi on espère que on espère que bu baax mu ñëw fii ci équipe nationale du Sénégal parce que xam nañ talent am xam nañ potentiel am xam nañ lu bëri ci moom gars on espère que mu ñëw fii ci équipe nationale du Sénégal. bu weesoo loolu tamit ah, ñu dem fële ci Angleterre wax ci nga mooy Ismaïla Sarr moom mi nga xamante actuellement mu ngi attiré bët bu baax a baax a baax. ci club yu bëri fële ci Angleterre notamment ci waa Liverpool actuellement fële ca Liverpool pour mu fin de contrat am jot mais ci lool na am na club yu bëri fële ca Angleterre ainsi que tamit fa ca xamante moo di Bundesliga ñu ngi koy ciblé bu baax a baax baax waaye nag gars ya ah, actuellement Bayern Munich moo ci gën a jege Bayern Munich nag bëgg a signé Sadio maane ñu ngi waxtaan bu baax dossier mu ngi avancé ci loolu nag actuellement Liverpool ñu ngi préparé kuy remplacer Sadio Mané foofu lee te Ismaïla Sarr bokk na ci Ismaïla Sarr tamit gars yi di leen rappelé que actuellement ñoom ils sont réglés en championship gars yi Ismaïla Sarr mais légui naka profit bu baax la pour Liverpool profiter ci ci descente boobu meuna jënd nga xamante modi moo Ismaïla Sarr té dina leen rappeler c'est pas la première fois ñu ngi ñëw ñom ci dossier Ismaïla Sarr année dernière ni loolu tamit waxon nañ ci Ismaïla Sarr mais à la fin transfert bu mujjul am fofu tamit dans championship la ñu transfert bu mujjul am mais ren nak nag ñom nak ñu ngi pare carrément pour recruter Ismaïla Sarr ok gars yi li la indi non woon info di leen ne bu leen fàtte abonné wu ngeen aimé vidéo nga activé cloche notification bi comme ça tamit dossier bi lépp nu mu munti demee dinaa ne indil ci ay leeral ndax ngeen mun koy jot leen jox dig daje ci kanam ak ay yeneen vidéo jaa ngeen jëf